di yàq sa di di yàq sa doole xam nuñ ko mën a waxee ci wolof di perte sa énergie di perte sa crédibilité ci koo xamante ni day dem te yow sax doo candidat donc je pense que loolu pour man euh, xel antanu ko kooku lu xel antan mooy ba nga ba bañ lay néewal doole ubbi bunt mënoon nga mën nga mën nga discuter mais boo dem doo dem ba am doole ki ki yoroon doole dooleem wàññeeku ngay ngay nangoo di ak moom je ne le pense pas.